maam ñu njëkk ña wute lool ak jamono ji bu ñu seetloo ay million yu bari yi ñu ci dégg ba tax na ñu bari di ci laajte seeni wareef loolee tax sax sëriñ bi di xamle ne gone yi léegi jiitalootuñu ngóor alal ji la ñuy jiital. Ah, suñu yoon lañu lañu bàyyi ndax bu njëkkoon mag ñi ñoo la daan jékki-jékki rek ni la may na la seen ndijaay sa doomi ndijaay wala sa doomi bàjjan yu mel ni mel noonu. beneen bi ci des tamit mooy jikko yi ñoo soppeeku ndax nan daan seey bu njëkk dañuy seey rek te yàlla rek tax léegi nag jigéen am na ñoo xam dañuy seey ngir bànneex am ñoo dañuy seey ngir ngir leneen ak leneen maanaam samay morom seey na nama naa naa seey moo tax léegi tas yi bari. seey léegi ak sëy yu njëkk yi ñun de sëy yu njëkk yi bi ñu doon sëy doon ñu woon gas paxum dërëm dañu daan sëy rek te yàlla tax. toppatoo suñu njaboot toppatoo suñu borom kër toppatoo suñuy goro toppatoo suñuy njëkke de moom ñun moom lañ daan sëye fóotal suñuy goro paaseel leen jox leen ñu lekk ba suur naan ba màndi toog waxtaan ak ñoom suñuy jëkkër tam noonu lañu daan def ak ñoom yu jëkk ak yooyu léegi bokkuñu ndax jamono yi bokkut ak léegi jamono yu jëkk yi dañ daan maye nit ne ko tey dey dugg bu ngoonee danga dugg ci néeg euh, diw bi du ca teg baat bu ngoonee mu sangu ba set dem dugg ca biir néeg ba loolu man teg naa ci sama bët mu dem sangu ba set dem toog ci néeg ba ba seet ñu xëy suba toog gi laax mu ceeb ñu wisee mu benn toog na kooka toog na fa ba léegi ay doom ay moodo moodo lañu barke borom Tuubaa léegi nag xale tey yii sa classe gi moom sëy dañuy seeti kër gi ba la ñu jaa dugg wala ngaa waxante euh, góor gi da nga dem ba ca kër ga seet ba xam nu mu euh, situation bi nu demee ba xam fu mu dëkkee nu mu mel ba xam këram da koo tabax wala néegi ñax la wala ay seng la wala lan la nga dem co nga doog a dem seeti bu boobaa nga dem seeti see seeyiw leen dañuy seeti. Serigne Touba da ca waxoon lu am solo mu dafa waxoon ni jigéen ñi dañoo yor ñeenti jikko dañ lay tooñ dëkk laa mer duñ la yërëm duñ la gërëm góor ñi tamit yéen dégg na war a yor ñeenti jikko da nga leen di manal ba noppi di leen muñal di di jéggale di jëlale daf mel nag ñi ñeent yi am ci jigéen ñi léegi amatul ñeent yi am ci góor léegi léegi amatul. naka noonee nag soxna si di xamle ne faaleetuñu goro waxatuma laa njëkkee ba tey sax sëñ bi mi ngi wax ne bu mag bu njëkk mag yi ñoo daan wutali seeni doom waaye nag léegi ñoom ñooy dem di wutali seen bopp. jamono léegi moo moo yàqu rek maanaam nit ku nekk boo bàyyee euh, li wolof naa ku wàcc sa ànd ànd boo dem. fekk fa fekk fa borom ngir ngir léegi bu bu la bu la ni tey ngay takk mi ngi lay laaj ay millions yu bari kooku lu mu lu mu def rek ñaare ñaare ñaare rek yow sa xol day dafay dafay naqare ngir kat kii daanaa dama financé moom lu bare bare bare te gisuma maanaam résultat kon nag yooyu fi ñu nii ay jàngat la xam ne ñëpp ko war a xoolaat seen bopp. jamono bee ko woote léegi da ngay gis sa waay nga ànd bu njëkkaa dañuy xool mag ñi ñooy xool sëy bi war ngeen a ànd warul waru leen a ànd seen i wërsëg ànd wala seen wërsëg àndut léegi da ngay dem jàll ba takk sa jabar indi sa yaay mën naa ba ñu yëg sa papa mën naa ba ñu yëg sëy des koy seet boo ci duggee da ngay xool ba xam seen i wërsëg ànd na wala seen i wërsëg àndut sëy ak place ñooyam ak suuf ak kër loo ciy dugg lu ne da nga koy xool nga xam dana la jig wala doon sa njiglaay. xaalis bari bi entre ci ci ci xale bu jigéen bi am na ci famille yoo xam si ne xaalis ji xaalis tam entre ci ñoom quoi ba tax ñu dugal seen doom loola tax say yu bari daanaka barkeetul et puis euh, daanaka du yàgg dara sëy yi tas. lu ci bari loolu laay gis sëy jamono yi njëkkee ak jamono yi bokkut suñu yaay suñu yaay yi nga xam si ne presque ñu ay 90 ans dañu daan sëy yu rafet di toppal seen di topp seen digalul borom kër mais jamono léegi daanaka xaalis la ñu topp quoi. sëy booy sëy soo gisee koo xamante ni bëgg na la nga bëgg ko danga koy yóbbu ci sa ñaari waajur ngeen waxtaan ngeen fas yéenee àndu sëy te yàlla tax amul laaj alal wala ma xam ne boog alal jamu jox na doon li dooleem tool ak li dooleem tollool ak ak ak li xolam àttan na doon lool rek. waaye sëy bu fekkee bëgg nga mu barkee sax doo ci laaj alal ju bari ñun xamuñu loolu ñun suñu sëy moom xamuñu ci laaj alal ji bari moom. jigéen moom loo ko may moom loo ko may moom yaakaar naa euh, jomb ko ndax suñ tubaab daa waxoon ne la la nga def ci ku jigéen ki ban jox la ko càmmiñam lu lu góor la nekk ca kër ga boo ci defoon fukkam du tax ñu jox la kon manqué tax ñu jox te alxuraan dafa wax ne li ngeen jox jigéen ñi. maanaam xintaar xintaar buñ ko doon tekki mooy bërigoob xaalis kon fii gisagoo fi ku fi joxe bërigoob xaalis jigéen moom loo ko jox rek jomb ko waaye nag moom naxa na na xam li li ko tax a jóg muy sëy du bànneex sëy jaamu yàlla la. xaalis léegi moom am na ci moom seqal classe gi moom inter lañ ko def moom xaalis léegi moom inter lañ ko def la daan jaay am ci lu bari muy muy lu muy lu bari. léegi da nga duubal ci loolu nga di ko jaay marché Ocass bii dañ fi doog a dikk booba juróom fukki dërëm boo ko yoree sew bii da nga ko duy ba mu fees juróomi jën dërëm lañ koy jaayee waaw kilo suppame ñaari dërëm wala tu diw ñetti dërëm léegi nag 5000 ku daan dépassé juróom fukk 5000 ngay dépassé léegi léegi nag noonu la demee. sey bi moom liir bay doog a judd ca kër ga sax ci sey bi la bokk chaque jour dama koy wax sama goro mag danga koy jox cër. yére mag warut a ànd ak yére xale foot boo footalee sa goro bu góor tey ba léegi nga fóotal sa goro bu jigéen ba léegi nga fóot sa yére borom kër ba léegi nga fóot sa yére xale bi doog a juddu nii rek sax bokk ca kër ga ca jarbaat ya ak njëkke ya ñëpp ci sëy lañ bokk léegi nag amatut léegi da ngay wax sama njëkkee li def na ma nii def na ma naa def na ma nii problème ci biir kër gi da ngeen di dem bay séddoo ay dépense séddoo ay lu ne daal yàqu-yàqu yi am ak kii daal bari na sëy moom moom sëy moom moo di da ngay jaamu yàlla rek la sey moom jaamu yàlla la da ngay topp sa ndigalal borom kër topp dab bànneexam moom leb la rek la loo leb la loo loolu lañ lay fay waaw loo bëggee doom ji baax da nga jaamu yàlla sa borom kër toppatoo ko toppatoo ko bu baax moo lay moo lay moo lay moo may eh, doom ju baax waaw léegi nag xale yi léegi moom difuñu loolu moom. lenn lenn kese muy xool mag ña waxuma ñe mag ña. man nan daan see ku mel ni soxna jaara ah, <coughs> soxna a Mbàkke ñu soxna Anta Njaay ah, mel ni soxna Aminata Lo ñu bare ñooñu nga xamante ni si ay ay référence la bari na bari jigéen ñi ñoo xamante ni si moom ku ñu jàngoon seen histoire seen histoire yaakaar naa eh, yëf yi dana te te jëfe ko de dana baax waaye nag bari na lu lu yàqu léegi dañ koy gis ci ci ci ci télé bi wala gis beneen culture boo xam ne du seen seen culture ñu koy roy te te te ñu koy def xëy na ñoom jig ni leen waaye ñun jiguñu bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag ñi ngay xamle ne léegi gone yi sëyatuñu dañuy fowee sëy yi te nag sëy du ay fo